loo nekk. maa ngi nii rek sant yàlla. waaw xam ne ay naataangoo lañ mënuñu ma ëpp ñu ma doole maa leen man maa leen ëpp doole barke Seydina Mohamed ku si jàpp dama lay duma daan la looloo tax ma dem tegal leen ndënd ay naataangoo lañ dañu war a ku bërewul ak man danga maa ragal. moom du yebel. barke du yebelu lan nan la looy ñëw nekk seen booy ñu soxla sa grand Lac Rose ngay dem di leen soxla. waaw nañ ñëw bu ñu ba bëree man ba pare ñu doog a dem si grand bi barke Seydina Mohamed mënu ñoo génn ci man maa leen man maa leen ëpp doole maa leen dàq a a soxla. ku ñëw ku ñëw kee fóot nañ ko ba pare buñ ma ko joxee ma weer ko. la ki ñu fóot. gan la ci fóot. waaw buñ ma ko joxee ma weer ko. loolu du erreur li nga yaakaar ma ni nañ ko buñ ma ko joxee ma weer ko. yow mun nga ci soq dara. barke Serigne Touba Mbacke dama koy weer. ñoom <laughs> nga samp jaaga Pape Ndoye jàkkaarloog soq ci digg géew. soq bu jàkkaarloo si digg géew ñii niñ ko def sax man ni ma koy defee gën a metti man damay attaqué damay koñe damay gañe amul xaar ku ma jëlul nag maa ragal barke yorante yàlla Mohamed maa ngi samay entraînement chaque jour nag di sant yàlla di muñ toog di xaar nañ ñëw ñu bëre man ak ñoom dañ ñëw ñu bëree amul xaar si bare xalaat ñàq <laughs> ndeysaan Pape Ndoye